الحمد لله الكريم زلمنا على الزخالي بفرود وزنن الحمد لله الكريم زلمنا على الزخالي بفرود وزنن الحمد لله الكريم زلمنا على ازدغالي بفرود وسنن شكرت لأنه قد ساغني لوطن بي نفع ما غني وغادني bon ñu ngi toll ci avancement travaux yi fi mu nekk nii nii nii nii ci phase finale bi lan nekk bi nga xamante ni si liggéey nañ ko dañ ko doon liggéey ci condition yoo xamante ni si yu xaw na lii la yu xaw na xat la waaye yàlla suñu borom ak ak ndimbalu sëriñ bi dimbali nañu ba nga xamante ni si ni fii nu toll moment bii nii nii ñu ngi ci phase finale ba tali bi dinañ ko war a mën a daloo ci màggal gi ci njàmbaarul mbokki taalibe yi nga xamante ni si ni ñoom ñoo ci dugal seeni i seen i addiya wax dëgg yàlla fi mu nekk nii ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax ba tax na lépp loo xamante ni si ni war nañ koo def ci tali def nañ ko ci tali bi ñu ngi ko liggéeyee ci condition yoo xamante ni si yaatu la waroon naa doon juróom-ñaari mètre waaye def nañ ko ci yaatuwaay fukki mètre ci bi ñu ko defee ci yaatuwaay fukki mètre def na nañ ko fondation boo xamante ni dañ ko décapé décapage bu baax def fondation bu dëgër ñi nga xamante ni ñooy suñu équipe la bi ñu ba def seen i tas gis nañ ni résultat yi wax dëgg yàlla macha allah ñu doog a commencé nag jublu ci bicouche bi bicouche bi biñ ci jubloo ba toll ci phase bi nga xamante ni fi lañ toll ci lañ indee beneen équipe bi nga xamante ni ñooñu la ñu woowee équipe noire moment bii nii équipe noire boo dee xool ci tronçon bii nu nekk dem nañ ci à une pourcentage de quatre vingt pour cent normalement d'ici deux jours tali bi nañ ko livré carrément lépp fii ak ñaari fan bu soobee yàlla tali bi nañ ko livré. daahin waan zugrika laarima منذ جذبتني إليك يا مهين عناية منك إلي لتعين فغمد مجذوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك مفودا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك خرجت لما لم أجد سرواك fa juddalil yawma bi xayri minnani ci ndigal lu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy borom liggéey bi ñu ngi ñëwoon fii tey ànd ak sëriñ Abiy Mbacke Cheikh Maodo Fadel mi nga xam ne mooy jawriñ ñi Touba ci kanam ànd ak sëriñ Abdoul Ahad Mbacke sëriñ Abiy ak mboolem waa daayira bi yëpp di sant sëriñ bi bu baax nañ ko seere woon kenn rek ci taxawaay bu rafet bi ak yéen a ji ndax sëriñ Touba kon ne xam ne Touba moo ko gënaloon lépp. ku fa masaan bàyyi ko bi ñu nekk njariñ boo boo agsee balaa wax ak kenn yow lay jëkk a waxal kon nag li nga xam ne mooy chaîne mandarga mooy waatu Touba ci kanam mooy wàccal ilaahi maskani Touba abat mis lesmiha bi jaahi xëyri man abat kon li fi àgguñ foofu rek mi nga xam ne àgguñ ci xaaya Touba waaye nag ñi ñi ngi ci wasiilatu mm-hmm. kon lii nag firnde la ndax ni ma ko doon waxee rek daayira boo xam ne ëppagul ñetti at wala ñeenti at tàmbali defari tëli maa ngi koy door ma sa gis ci Sénégal daayira yëpp ay jàmbaar rek waaye lii moom ci yéen la jëkkee kon nag nañ xam ne la Serigne Souhaïbou bi Mbacké daa wax rek fa laa koy tëjee dafa am ko mos a bàyyi ko Touba boobu dëkk mi ñàkk na ndox lool Serigne bi comme ni ma ko waxee rek. balaa ma sa wax ak kenn ki jëkk ki jóge Tuubaa lay jëkk wax la mu ne ko naka sama dëkk bu tedd ba mu ne ko Mbàkke ba dëkk dëkk baa ngi fa waaye ma ngi ñàkkum ndox lool sëriñ bi ne ko loolu de dox na diir bu gàtt dana jeex mu ne ko Mbàkke xanaa loolu ku gudd fan du ko fekke <laughs> ku gudd fan loolu du ko fekke mu ne ko ku gàtt fan du fekke dara ñu teg ci ay fan mu faatu kon sëriñ Tuubaa lépp lu ñaan suñu borom rek lu mu tëgg bëtam la ba may ko ko mu bind ko lii nag firnde la ci loolu kon nag ne ni ko ko Cheikh Mouhamadou Mountakha di seerale waxtu bu ne rek mooy ñaan ci Serigne rek ngeen àgg fi nga jëm te dara bañ leen doon ndax lii kat njariñu ñëpp la ñi ma nekkal ci biir oto bi kat wax naa leen neneen fii de ku fi jaar bu déggee ñu wax ci yeen ab safaan du ko mën a dégg boo yexee bu mënoon gàddu yo dóor la ko ndax loolu jëfu ko maye Cheikh Abdou Lahad Mbacké ne dadaa wax ne wax ak jëf li ko wutale mooy boo yend woon wax fii ba déwén ci ci néeg bu ci su bu ci suba saa bu ëllëgee ku fa ku fa jaar du xam ne ni jaaroon na fa waaye boo doon fii ab bant rek samp ko fa ba ba téeméeri at li fi bant baa ko fa ñëw fekk ko fa kon jëf mooy mooy des lii nag jëf la kon nag yàlla na sax bu baax ba fa ngeen jëm rek ngeen àgg fa barke suñu Tuubaa te xam naa moo ci amit nag ndax moom kuy kuy xalaat da nga xam ne suñu Tuubaa nangu na ko ndax la Serigne Saliou daa wax ne lu fa xolub taalibe yi jëm rek mm. fa la xolub jëm te daayira bi xolub taalibe yi suñ Tuubaa yëpp ko nangu jullit yi bëgg lu baax sax ko kon nag tawfeex rek la jërëjëf min baadi maa kaadamti daaw naasi yudxiluni fi sarrakil xanaasi wa gittu lil amdaay wal idraayi أسد في التأليف والإقراء وفي التعلم وفي تعليم وفي ازدخالي بهدى المعلوم